mu ne ñi xam ñun ñëpp ne bibliothèque moom moo daanu tey nee na ku nekkoon mu xaamilu fayda la moom moo daanu tey ku doon défendre fay tariqa tijaaniya moom moo dem ku doon défendre diine l'islam moo dem mu ne ku baax dem na waaw kii kay nee na du nee na oustaz doomu baay la ndax nee na baayam ci kër Dem la nekkoon Thierno Thierno Alxasan Dem moom moo tarbiya baayam non man baax na oustaz Ahmad Ba Thierno ko jox biir Tijaaniya njëkk ak muy laxas di dem boog dee ci Thierno Abdoulaye Dia pour jàngi. mu ne kóllëre googu. ko mu motal ko saxal ko ba yàlla indi ndogalam tey ci sunu biir. Thierno Mouhamadul Kabir nee na kilifa yi fi teew yëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant te di leen jaale. loolu sunu xarit wëllëreem Cheikh Mouhamadul Mamoun Issa Diop teew na ci mbooloo mi mu ne depuis bi mu yëgee xibaar bi minute bu nekk laxasa bu nekk mi ngi koy génneeku di ko woo di ko xam fu yëpp yi toll ndax nee na oustaz mi ngi xaritam la woon wëllëreem la woon nee na ñëw na teew ak ñun ànd ay rakkam ak délégation bu takku bu mu indaale imaam Cheikh Ahmad Tidiane Ndiaye bu Huda al Huda teew na fi ak mbooleem waa Madinatul Huda yëpp teew nañu mu ne kon oustaz ñu ngi wax wax ji du du du dafay gàtt du gudd ndax nee na mi ngi jëm fu sori te naaj baa ngi commencé tàng te ay kilifa ñoo fi teew ñu mën a yeeweeku dem Thierno Mouhamadul Kabir Hassan dem nee na mi ngi dañuy tënk kàddu yi rek nee na mi ngi ànd ak rakkam mooy Cheikh Oumar Hassan dem ak oustaz As man mii ci rakkam yi laa bokk Thierno Mahmoud Thiam ñu ne ñëpp ñu ngi teew fii.